waaw comme Mor nu mu ko waxee mun naa wax na lépp euh, weddi tuuba du ragal seetal sa der la te tey Moustapha Ba génn na wax suñ der loo xamante ni ma rafetluwuma ko parce que tey bu waxee ni ñun tey Thier dafa jël 6 million ñi jënd jëndal ñu ay njege njaay jënd oto jox ma jënd oto jox mootaala loolu mun naa wax li mu wax tegu ko fenn ay kàcc la may gën a ñaawlu tamit lenn parce que dama naan nii la mun a mel parce que moom moom di wax tey ñëpp xamoon nañ ci Pape gi Ndong la nekkoon jóge na fa dem Cheikh Tidiane Thiam DRS Ageroute jóge fa dem ci eh, eh, Rama Maki jóge fa topp ñu ah ba ba ma mortala ni ñu yóbbu leen si Grand Thier ba ñu yóbbu ko ci Grand Thier tey mu bëgg ñoo féewaleeg Grand Thier loolu ñun duñ kon nangu ñun am nañ plein droit xeexal Pikine parce que bu buñ doxee tey ñu ne buur a ngi ne mortala ngi ne ñun Pikine lañ dëkk comme mor nu ko waxee am fi ay titre foncier suñu yaay Pikine lañ juddoo kon ñun kenn ëppale pikin Pikine donc tey bu mouvement jugee Pikine jug ñun dañuy jug waaw mais nag loolu metti nañu ba ci kanamu yàlla te moo ni mu ko xëy dinañ ko topp jusqu'au bout dinañ ko porter plainte dinañ ko topp mu leeral 6 millions yu mu wax parce que dafa rëy lu rëy lu doy ni 6 millions nga ne leen jox njage njaay si dëkk lëmb Pikine ni mu rëyee loolu wax ju rëy la 6 millions yi li ko waral élection yi passé ñoo ànd ak ceer di campagne am ñu frustré fii ko ñu aafiya kuñ naan Assane kebe ceer comme que moom day dox jàmm ci Pikine président Macky Sall loolu la ko santee Pikine ñu dem seeti seeti leen bu leen demee seeti Thierno Assane kebe dinaa la jëndal oto Ndiaga Ndiaye su ko defee ngay liggéey comme que trans da nga doon liggéey ci Ndiaga Ndiaye dem nga ba oto jël 500000 bi muy jël 500000 yi ànd nañoo ak 7 oto kuy joxe cinq cent 500000 ànd ak 7 oto ah kuy joxe buy joxe 6 millions dina ànd ak 10 oto wala 12 oto wax day tingoom seere bi ñëwee mu jël 500 mille jox ko jox ko gars yi jëlaat ko jox ko Baye Ndiir ku ñu naan Baye Ndiir ñuy ñaan yàlla mu gën a am jàmm. loolu moo ko waral léegi nag bis boobu Tapha Ba ñun la àndal ñun ñoo ko présenté Thier donc si loolu la sukkandiku bëgg a yàq suñu der loolu nag duñ ko nangu dañuy wax xamal Pikinois yëpp ñun dinañ ko porter plainte ànd ak moom ba moom leeral wax ji di waxaat leneen li ñuy wax pikin Pikine suñu Pikine la te incha allah mercredi dañuy taxawlaat 10 minutes de Pikine yi Pikine Ridis xam nga la moo tax ñu koy war a ñu koy taxawal parce que loolu Pikine askanu Pikine ñoo ko soxla te ñun ay doom Pikine lañ doom Pikine lañ Mor wax na ko léegi président Macky Sall moom la ñuy waxal mu ñëw changé xar kanamu Pikine te loolu mercredi la mais nag il est temps ñu leeral Pikine waaye ni ñun ak Thierno Ndomba jotewuñ dara suñ garant la Moustapha Ba moomu di wër di yàq der noonu la demee APR yëpp yàq na seen der ñun ñoo kenn dara ñun jàmm mooñ tax a jug mais daf ñoo tuumaal loo xamante ni neexuñu ba pare accuser ñu ay tux day tuxkatu yàmba ñun ñun ñëpp xam nañ pikin koo xam ne doo tux cigarette ah nuy tuxee yàmba xoola wax yu ñaaw yooyu mais nag moom noonu la mel parce que APR loolu la fi nekkee di jaxase day diviser pour mieux régner ah mais nag laal na laalaake dinañ ko topp jusqu'au bout di wax Pikinois Pikinois yi di wax ak pikinois yi ñu waajalaat 10 minutes de Pikine bi mercredi dinañ génnaat riidis lañ koy defee na Pikine na jeunesse pikinoise yëpp génn Macky Sall xam ne tey jeunesse pikinoise moo soxla waaw ñu ñëw génn si parce que Pikine xar kanamam 50 ba jusqu'à présent dara changé wu fi et duñu taay di wax ci loolu ba président Macky Sall di indi chantier di defar Pikine su boobaa nag ñu toog jàpp suñu ñaam ak xëyu ndaw yi parce que mooñ ko digoon te duñ taay duñ ci wax parce que bu ñu waxee Pikinois yi xam ne tey wax nañ donc il est temps ñu génn ànd ak ñëpp wax loolu moo waral lii moo tax ñu ñu war a leeral leeral Pikinois yi ñun doxuñu si lu ñaax fu la mosuñoo lekkal kenn fukki dërëm te fu nekk la ñuy dox